nañu xoolaat xeltu ci conseil supérieur magistrature nan la gérer carrière magistrat nga ne du am xàjj ak seen nga cadre ne ku nekk li nga yelloo ak li nga liggéey ci biir magistrature bi ñu jox la c'est très important Il faut aussi la nécessité équilibre des pouvoirs mooy ku xam république xam état ñetti banqaasa ko yor le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire Le pouvoir exécutif mënut a doxal ni muy doxale pouvoir législatif di doxal ni mu doxale tey ji pouvoir judiciaire mën soxé ba ku nekk ci am xel ñaar. xam nga tooguñu tey ji ne dañuy def. Mm. les assises. de l'Assemblée nationale. waaw dafa ñu tooguñu fi ne dañuy def les assises du pouvoir exécutif mais dañuy joyanti justice bi té nak foog naa ne ñi ñu invité fi muy professeur de droit yi muy les pratiquants mm. muy les acteurs du système judiciaire ñoom ñep ñu tok fi ah, société civile ak ah, société civile am ay ah, citoyens am na ñoo xam ne nañ hmm. kasso xam les conditions de détention xam jafé jafé yi nga xam est-ce que en prison ni ngi respecté ak yele parce que japp ni dool ko ci biir kasso hmm. yoon la mais ci biir kasso dafa am àq ak yele est-ce que aujourd'hui war na waruñu xolat

war xalaat statut administration pénitentiaire depuis 2008 je parle même pas sous Makissal je parle sous le règne de maître Abdoulaye Wad depuis 2008 les statuts de l'administration pénitentiaire sont dans les tiroirs dans les tiroirs donc ça aussi c'est des faits yo il y a un point sur ça il faut que le lieu optimiste nak ñu tek ko ci table bi mën ko waxtaanee ko li ñuy ñaan moy buñ ko yobbo ci ñi nga xam ñoo wara jël décision moy pouvoir exécutif bi ñu tuddi ñu trouver un modus operandi parce que une chose est de déclencher une réflexion une chose est d'aller vers vraiment faire des propositions mais proposition timit ñi ko wara appliquer dañ koy waxtaanee. Mm. bo xol lan mo ci gëna jamp lan mo ci gëna a nekk loo xam c'est urgent ñu defee ko lépp nak ci askan wi la jëm. waaw parce que dafa am solo sëñ xaali que sénégalais yi gën a xam yoon gën a xam seen justice. bien sûr est-ce que tey jii jàpp nga ni rôle média yi. am na solo pour que sénégalais yi au-delà de la plateforme Jubanti gën a xam seen àq ak seen yelleef ak fonctionnement justice. mais je pense que. Euh, est-ce que est-ce que bokk na ci say mbëbët. je pense que aujourd'hui bon nous on va essayer de faire de telle sorte que da ngay gis yow journaliste kenn jox la benn document. moo lër na document boobu dafa war a dem ci justice Sénégal ngay gis kenn kuy dem ci justice am dëgg sax tiit maanaam yow dans sa bopp xam nga ne yaa am dëgg mais ngay dem di tiit parce que xamoo nu muy fonctionner xamoo ndax di nga am avocat boo xam ne dina topp sa dossier ba mu jeex parce que c'est très compliqué c'est très compliqué il faut nga am kenn ku la toppal sa dossier nga am avocat boo xam ne day def mbir mi non pas pour xaalis mais koy def sacerdoce. ba pare magistrat bi am jotu xool ko. magistrat bi am jotu xool ko. Mm. Euh, donc magistrat bi bu ko xoolee càmbar ko tamit bu koy jël décision mu leer na la kii fu ko teg même sa avocat da lay wax la la fi magistrat bi teg décision bi mënoo ci dara mais beneen aspect boo xam ne aussi ñu bari dañ koy poser comme débat mooy lan le juge a souvent les mains liées. article 80 c'est un débat Donc, koy poser, xam offense au chef de l'État à jii ala kulli le procureur vise article 80 y a le juge te dit je les mets liés article 80 ak un article yu dans code de procédure pénale c'est des articles euh, même les juges qui sont honnêtes c'est des articles liberticides qu'on a hérités du temps colonial. madame tubaab bi moo ko fi bàyyi moo fi hmm. est ce que léegi ñun suñu réew nu ñu bëggee mu est ce que waruñoo toog xalaat ne article yooyu war nañ ko teg mu def toilettage def toilettage article yi. Hmm. article liberté civile. cela ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à des dérives. Hmm. parce qu'il faut tout encadrer. Parce qu'on ne peut pas se permettre aussi, surtout avec le phénomène des réseaux sociaux. Ouais. Moi, je peux comprendre quelqu'un mu def ay critiques par rapport au gouvernement dans sa gestion des actes politiques qu'il a posés dans sa manière de gouverner mais quand tu as fait yow nga yow da ngay parce que yow ya entre quatre murs nga tok jël sa euh, parce que léegi téléphone nga tok attaquer nit ki personnellement sur sa vie privée attaquer nit ki ci lenen ak lenen loolu ba paré oui parce que je suis un lanceur d'alerte ou parce que man dama je suis activiste non un pays a besoin d'être encadré on a vu des pays qui ont ne ñooñu démocratie euh, je veux parler des États-Unis de la France mais quand il y a ces dérives là mais la justice sanctionne bien sûr donc il faut aller dans ce sens que il faut tout encadrer mais les articles liberticides parce que procureur pour moi, le ministre bi nga gens qui ba waruñu rek taxaw ne moom bu mandat de dépôt jël dossier bi yóbbul ko ci juge juge day wax ne ah procureur ko laaj kon juge boobu kon jarul muy xalaat. war na mën a xool xalaat ne ah lii ma koy topé pour mandat de dépôt euh, man d'accord ou ci ah je le mets en liberté parce qu'il présente toutes les garanties su ma ko soxlaa mën na ñëw ah. mën naa ko def sous contrôle judiciaire de bouger. un mm. aspect bi c'est très important aussi moi que des fois juge day le nit nga la liberté provisoire procureur Tok, je m'oppose pose ñu bàyyi waaji ci ça veut dire que ça dépend de la bonne volonté du procureur de te mettre en prison ou de te laisser libre. Mais je pense que j'anticipe le, le, débat. et puis les autres vont parler de ça. Nous jooyanti tamit beneen mbir nombre de magistrats yi ak dossiers yi nu muy Sénégal est-ce que vous war nañ si mën a am saafara fu ñu toll nii. waaw war nañ ci parce que euh, comme exécutif nous ngi fi te ñoom ñooy jël am fonctionnaire des fonctionnaires xam nañ le ratio nombre de magistrats population du Sénégal c'est un ratio qui est démesurément déséquilibré boo xoolee nañ la wax magistrats sur 18 millions de population

poñ du leen ci soññ xam nañ ko tey lu ñu dund rek ñoom dund nañ lu ko raw lu ñu xam xam nañ lu ko raw kenn mënta nettali géntu moroomam kon nag ndokk ñoom ba ñu xamee loolu def ko itte te lii doon itte joo xam ne nii itam bi mu taxawee askan wi ñëpp nee nañ alhamdulilah ndem wooteel nañu lii lii nag wax nañ li fi xew yëpp wax nañ li fi li ñu fi tumranke wax nañ li fi ñàkk ci ay doomu aadama wax nañ ci ci ay lim boo xam ne nii moom moo war a doon ñey doxal lu ni mel wax nañ li fi nekk ci ay jumtukaay wax nañ li fi nekk itam li tubaab di wax des goulots d'étranglement mu doon yoo xam ne ay obstacle la yoo xam ne dañoo nekk ci kanamu ñiy doxal wàllu yoon te ñiy doxal wàllu yoon xam ko ndem nag nee nañ bëcc lépp ci taabal ji tey fii la penc mi tey fii ci ñi juróom benn fan yi nga xam ne moom lañ fi war a def du ma ne war nañoo mën a sottal lépp waaye nag ndem xam nañ tawat ji saafara si moom yor nañ xalima gi ñuy bind ak daaj yi ñuy bind saafara tey foog ñu bind ko ndax loolu doon loo xam ne mun ta ta mun ta xaar ndax wàllu réew boo xoolee wàllu koom mi ñi fay nekk di ay investisseur bëgg nañ seen xel dal man mii su ma xëyee di liggéey bëgg naa sama xel dal ku ma kenn ñëw itam daf ma ñaaw te bëgg naa sama xel fu ma demee fenn di ko jooytu te ñooñu itam ëpp may rongoñ mënuñu maa fajal samay jooy kon fan lañ jëm mhm. te daf pilier pilier wax professeur ba gi wax

amuñoon pétrole amuñoon gaz amuñoon lenn te teewuñu taxu ñoo fande taxu ñoo ngor googu ñu nekkon nak mën nañ ci wëy waye nak ngor lañ wax ngor nak dafa am lo xam mo koy lay tay mo doon seen wareef ak seen yar kenn bañ ko fell ndax ku ko fell nak mën nga ko jaay sa bakkan te am na lan mën na la cee fekk. dañ koy tàmm di wax euh, connaître ses droits et faire ses devoirs c'est pour ça papa allez je vous demander tout à l'heure est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui urgent hmm. de euh, promouvoir le débat sur la justice sur les questions des justice, sur l'éducation à la justice, à travers les